jama amul problem problème jam ak problem problème cinquante mille cinquante cinquante mille cinquante deux mille cinquante mille cinquante mille moom am soxla yow ya, nday nday mo la wo di la di la 50000 dama xamni damaa xam ne man daanaka seen baay laa te seydou du fan du yari fan man won nako ar ko ar sey bi yóbbu defal ko ay cangat waaye man mii ba ma tëjee kaso tey yaa ma yóbbul añ te man ñëwee mu police. yow sama jëkkër bu ñëw dinaa la tëj ba dam ci caabi. lii laay bañ da ngay jaay capable rek ak sañ dinaa la won ne la yow wala li nekk ci yow du dara li nekk ci yow noonu ngay bandi bandi yow doo bandi.